Gouye Gui capitaine wala Balla capitaine. ñaar kan ma si capitaine. waaw waaw di kontaan nag parce que vraiment waaw ñun moom yéen a ngi xam quoi comme ni ñu waxee un contre tous la tous contre solo ñun moom la ñu wax lii nekk ci ginnaaw doo ko nekk ci ginnaaw la koy wax dafa am loo xam ni faaw ñu bàyyi ñun ñu dund ko ñun waa ñun amatuñu jot boo xam ne sax nga gis Balla Gaye gis Gouye Gui gis Lac de Guiers amatuñu jot boobu mais amuñu problème bu gars yi dugg suñu biir naan problème problème problème boo fekkee Gouye Gui Balla Gaye danaa nii li wax xanaa amul nga fekk guy geeg la de guerre li amul nga fekk bala gi la de guerre la amul amuñu jot boobu ñi nga xam ne nii ñu sew yi la ñu sew yi ñu sew yi yoo yu génn yu sew yi nañu tëj seen làmmeñ ñu liñ bëgg mooy jàmm suñu suñu biir xam nga ni guy gi doon ni Balla Gaye ci bëre nga di ko tëkkaleeg moom doon Balla Gaye ci xamama di ko tëkkaleeg moom. soo jëgi tëgg eh, eh, waaw dafa nekk rek. dama damaa de. waxal waxal noonu moom. comme ñoo xam ne dañoo dañoo say yaay. wala Balla capitaine loolu la waay. li wax dama ñor de. Ah, voilà ah, ah. may wopp. mi ngi problème mooy match bi. tey li tax ñu def ko. initiation bi mooy cent pour ñun amuñu 100 pour cent mais 100 pour cent wax def ko uh-huh. Fils fee góor soog uh-huh. pare dem mu rafet ñu pare ñëw ñu te bu ñu amee adversaire adversaire mu na fee taxaw uh-huh. lamb mun na fee taxaw ñu xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñii dekk stade di di buddi yi nañ ko baax nañ xool ci lii ñun ay benn lañu violence nañ xool ci lii nañ ko bàyyi diggante gi ay parcelle dañoo bëgg mu gën a nooy parce que dañoo jigee golf ca la yëpp yëpp jigéewaay la nag gën a nooy gën a nooy gi nag ci ñu lay commencé ñun leader parce que porteur de voix lañ ñu waxee dañuy déglu tey jafe na tey nit woote ñu wuy si la mais ñun bu ñu déggee ne fii ñu fa rek dañ fay ñëw waxuma nag ñu wax kon li wax nañu ko déglu bu baax ñu moytu violence moytu damm siège jàppale ñu ci suñu ñun li ñu bëgg mooy ñu nekk benn Guédiawaye te incha allah yoon bi ñu jël nii bu neexee yàlla suñu combat ci kanam kon li nga bëggoon am na ci réew mi ma bëgg ñun ñëpp la Balla Gaye mën na ñun ñëpp la ñu mën na ci dañoo baax rek as yi fu ñu toll nag moom lañ doon dégg ñu waxtaan waxtaan ak baax du ñëw di ñëw du sotti da ciy ànd moom moom njëkk a sax ne ma maa ngi lay woo jotuma nangam pour am ni kon sawar na pour ñëw la da guerre noonu keneen ak noonu nañ bàyyi loolu télé yi nii jàpp ku ñu tàllal micro ngay wax sax lu ne ci moo dul yoon baloolu koy ay am ci kontaan tam ci mbégte aussi vraiment li yàgg nañ ko def ñu gëjoon def la ak li gëjoon am na monsieur Guy gi moo doon organisé yu mel nii donc yàlla suñu borom ñàkkoon jot ñëpp ñàkkoon jot aussi nekk sa ruq nekk ci ay bagages yaa ma gën a mais vraiment bu revenir dañ koy kontaan ak suñu mag yi mu daal ak DPR ne nekk ci géej yëpp ñu ngi leen di remercier gis nañ seen taxawaay ANICD SACES Marley seen junior vraiment moo lim damay jóg waa parcelle aussi tamit euh, seen équipe yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que gis nañu affaire yi rafet na bu leen neexoon aussi tamit ñu ne dañuy xëccoo njëkk a ñëw ñëw aussi bu ñu ñëw ñu ngi rafet bu baax leen woon ne fii ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lu ci waay di wax ak lu ci waay di def nga xam bu baax li ñuy def man la dëgër bu ma neexee dama koy yàq lu ma neex fuy gi ma nekkee dama koy yàq lu ma nekk yoon kenn ñëw ci ñun la concerné personnellement mais ñu xam ne rek entre lii ñuy def nii kenn ku nekk dañoo bëgg suñu biir bañante wuñ suñu biir bu fekkoon kenn duñ nangoo ñëw kenn duñ nangoo déplacé en daal yàlla suturaal nañu lépp lu waay di def cent pour cent deux cent pour cent mille pour cent yàlla xam ne ci géej waay lañ ko gisee ñun ay royukaay lañ ay exemple comme bu yàlla dogee aussi tamit ñëpp di roy si ñun ñun bu ñu tax bu ñu géejee gisee sax bu ñu xalaat ne dañoo réeroo wala dafa dafa mais ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm Lac de di gërëm Gouye Gui di Adama Ngom di gërëm Lirou Diane ak ñëpp kenn vraiment di gërëm daal yéen ñi sax ñu leen sant. mais Balla parce que Balla. léegi nag léegi nag mais Balla. Balla Gaye boo nga ñëwee Balla boo nga ñëwee gis sa frère de Guiers gis sa frère Gouye Gui nan non yaa on est ensemble parce que yàgg nañu gisee aussi tamit vraiment c'est la première fois mais li mbégte la rek pour Sénégal yi waxkat yi aussi tamit xam ne vraiment jàmm la mais